bëggoon wax ni rek seen doom jàmbaar la jàmbaar la parce que d'abord nga nekk enseignant am métier nga jàng fa nga war a jàngee ba nga dem ba nga am métier nga xamante ni kooku du truand du sàcc du voleur du quoi que ce soit dafa nekk quelqu'un ba nga xamante ni quelqu'un de très responsable koo xamante ni quelqu'un de très respectable euh, comme ku am euh, max euh, xam-xam boobu

donc euh, li mo taxone ñu né dañuy ñëw waxtaan ak yeen ma saw leen mais tamit di leen euh, remercier nu ngeen inculquer suñu frère bi ay valeur ay valeurs yi nga xamante ni fépp fa nga nekk da ngay yëkkati sa baat da ngay marcher la tête haute euh, kon damay tënk foofu di leen wax ni daal ñu ngi avec vous et que suñu frère bi bàyyiwuñu ko du tout ñu ngi koy nemmeeku ñu ngi koy seet ngeen xamante ne Pastef bàyyi ko fenn bàyyul benn euh, rakkam bàyyul benn euh, sëram koo xamante ne Macky Sall da ko jël tëj ci kaso maa ngi wàcc foofu kàddu di leen remercier bu baax a baax. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen delluwaat di dénk suñu bopp di leen dénk suñu doom ndax am nañ doom ju jàmbaare am nañ doom ju dëgër am nañ doom ju bëggul yëfin kenn ku dul jub ak jubal ci loolu lañ ko jële ku bëgg fameem ku bëgg deretam kuy daw lépp loo xamante ne lii rek mooy noot doomu aadama bu may wax ci moom sama xol lay fees ndax dafa bëgg famille taxawu famille ñu jël ko ci ñàkk doole ki Macky Sall ak ñi topp ci Macky Sall képp ko waxul waaw Macky Sall rek dañ lay néewal doole mais nag yàlla mooy ki am doole ñu ñaanal suñu doom mu dellu siwaat suñuy loxo defu fi lu bon waxut lu bon defut kenn dara lu dul bañ ku noot doomu aadama maa ngi koy ñaanal fii mu jógee bàyyi fi njabootam téye njabootam te yàlla tax yàlla na ko fi yàlla dellusiwaat siwaat te nag incha allah dina dellu ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp gii mari ma lay bëgg ci sama xol ndax sa taxawaay ci Sénégal saa buñ la gisee télé ñu ngi lay bëgg ndax fii suñu doom aw damay xalaat ne sax yaag Sonko ci yéen la yooyu roy léppi caaxaan da koy won gannaaw léppi dëgg mi moo du Ndiaye yal na ko yàlla delloosi ci njabootam ci kàttanu yàlla. di leen baalu wax aussi ci ci ci dérangement bi euh, di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo euh, nga wasaare ko ci dëkk bi waaw ñun nag tey dañ leen a gane si euh, ñun waa ndaw yi Pastef maanaam kuréel gi nga xamante ni ñoo àndandoo président Ousmane Sonko nga xam ni ñëpp xam nañ ko di politique. Euh, ngir yootu réew mi ngir soppi réew mi euh, ñu bëri nag bokk ci projet bi ñu koy wéy di doxal état Sénégal teg ñu fitna ba ay nattu fekk ci ñenn ñi ñenn ñi yàlla jël leen ñenn ñi ñàkk ci seeni cër ñenn ñi ñu jël leen denc leen ci kaso bi yàlla nag nattoo ci ay doom yi ay doom yi ba tey ci dëkk bi ñuy wax ni am na koo ci xamanteni fi la bokk tudd góor nongo nongo fall euh, nongo fall nag euh, ñun bi ñu déggee ni nga xamanteni ni tey non noonu lañ ko téewee nekk na loo xamanteni lu nu metti lool la ndax koo xamanteni deful dara di doxi soxlaam ñu jàpp ko tëj ko te gannaaw loolu Sénégal am na ñoo xamante ñu ngi def naka sudul nonu ñu ngi leen di bàyyi ñuy doxi seen soxla loolu moo waralal tey ji fii suñuy tànk yëpp benn la ndax dañuy faral di wax ni suñu objectif li ñu nam ci dëkk bi mooy li ñëpp bokk ñëpp jot ci maanaam tey fii nga xamante ni fi lañ nekk tey jii bu ñu sañoon condition yi yi nga xamante ni moom la nit ñi nekkee fële ca Ndakaaru wala Tambacounda wala Sénégal oriental yëpp nekk benn Sénégal lépp loo xamante ni ñoo ko bokk rek ñëpp bokk ci mënin ñëpp bokk ci cër buñ ko séddalee ñëpp tolloole loolu moo nekkoon kombaaw Pastef loolu moo nekkoon projet bu Ousmane Sonko. Mhm. waaye comme nag dañu ne ci réew moo xamante ni par parloo da cee bëri li nga xamante ni moom la sénégalais yëpp bokk ñi dañ koo jël seetaan ñeneen ñi te yàlla dafa wax ci alxuraan suñu constitution aussi wax ko lépp loo xamante ni charte la maye ko ne nit ki boo amee loo xamante ni metti na la mën ngaa génn nga ñaxtu ko positivement dara du fekk mais rek suñu réew nag ñun amatuñ ci ba ñu ñu doole jàpp ñenn ñi jàpp ñëpp tëj tey nag bu ci ay doomu Bambey bokkee yoon la ñu ñëwaat ba fii àndandoog ñoom masawu leen baalu leen àq waaye àndandoo aussi di ñaan ngir ñi nga xamante ne ñoom lañ téye ñu bàyyi leen ci nu mu gën a gaawee loolu moo sabab kuréel gii nga xamante ni ñoo ngi ko tuddee seme de la libération maanaam dindi tënk yi ndax dañoo jàpp ni noo tënk loolu moo fi suñuy tànk ñu leen ni sàkku si yéen ñaan yéen kilifa yi loo leen ci mën rek ci wàllu ñaan ngeen def ko ci waye aussi di len masawu ci ki nga xamanteni mom moom japp ñu ñaan yalla ñu bàyyi ko te amna nañ dinañ ko bayyi ndax fi ak ñenti wër japp nañ ñu suñu réew dina changer ba ku ci nekk fa nga nekk ca kasso ba nga mëna retrouver say wajur ndax fofu du sen place lolu mo fi neewon suñu kaddu ma ngi tub bu baaxa baaxa baax euh, di di di di assalamu euh, alaykum wa rahmatullah no ngi leen di jox kenn ku nekk di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla seen tànk yi ngeen dox ba dikk ci sunu dëkk bii di ngàcc ngir sunu jëmm ak sunu njaboot yàlla leen ko yàlla fay lu kawe seen njort li ngeen bëgg nun ñii ngeen nu bëgg ko nun ñii ngeen fekk rek lan bëgg lii ci yàlla dogal nag eh, xëy na day lu yàlla dogal waaye man mii di wax du wone damay ubbi sama rajo di déglu Sonko dong laay déglu te chef de village laa de chef de village laa maay chef de village mais Sonko rek laay déglu suba gu yàlla sakk parce que liñ ko def man wóor la ma jëmmi yonent bi dama naqari te billaahi wallaahi su ma ko mënoon faj faj ko parce que as gor di jullit nga jàpp ko di ko di ko di ko di ko menacé menacé boo xam ne bii sëñ bi ci sa doole yàllaa kopp doole waaye nañ bàyyi lépp ci loxol yàlla te wallaahi la asim Sonko mii bu gisalut Macky Sall nga xam ne lor nit wàññiwut nit dara waaye lii ngeen dox nag noo leen ci sant noo leen ciy gërëm fépp fu ngeen taxawit noo ngi taxawaat ci seen ginnaaw ni sunu doom taxewoon ci ginnaawam ba yàlla dogal ci lii xëy na yàllaa dogal mu war a tëdd foofu fan yi mu fa war a tëdd dina ko fa tëdd bu jeexee mu jeex sant nañ leen nag gërëm nañ leen ndax fii mu nekk seen taxawaay lépp mat na lépp lu ngeen ci war a def def ngeen ko ba mu mat sëkk kon yal na leen yàlla fay sant nañ leen gërëm nañ leen wax dëgg yàlla lii rek la nit ma mënal nit ànd ak nit ba mu nekk ci fitna nga ñëw di ko topp di ko toppatoo di di ko yëglu di dem fa ay njabootam di dem fa ay kilifaam di jël seen teraanga di ko fi joxe ndax seen ñetti yoon ngi bu ci nekk bu ngeen ñëwee it fekku leen ma fi waaye bu bu bu ngeen dëddee ñëw nañu expliqué ma ndax sama njaboot lañu maa leen joboote tey te wax dëgg yàlla newuñu lu may nit ñu am jom ñu am sutura ñu am teggin te lu ñu jàpp la jàpp pour réew mi doo nga tax ñu jàpp ko ba loola doo nga fekk ko ci kon yàlla leen yàlla wattu yàlla na yàlla def seen tànk yi muy muy tànk ngëneel ëllëg te am nañ ci yaakaar bu baax wax dëgg yàlla de lii yàlla seere na ne nun ñëpp la metti parce que Sonko as gor la jullit de yéen ñi ànd ak moom it gor ngeen jullit ngeen lu baax it ngeen bëggoon waaye nag eh, ku bëgg lu baax yàlla lay nattu sëñ Tuubaa moo ëpp ñëpp doole te xool nga nattu yi mu jaar waaye ba yàlla tuddee la mu war a am mu am ko am na ko yéen itam bu ko yàlla tuddee day ra yaakaar nañu am nañu yàqit ne day li ngeen bëgg di ngeen ko am xaw ma tey la xaw ma suba yaakaar nañu ko yàlla nag moo yor lépp yàlla na ko yàlla dogal sant nañ leen gërëm nañ leen. que ni Alioune Badara seen doom la waaye seen doom bu am njariñ la ci liggéey bi ñuy def. waaw seen doom la mais seen doom bu am njëriñ liggéey bi ñuy def tey nag kàdd yi du bari comme ni ñu waxoon ci géej keroog moo ci am solo mooy xale la boo xam ne dafa nekkoon fii di liggéey gëm projet bi nga xam ne moom la président Ousmane Sonko yor projet boobu nag liñ ci mën a wax mooy nekkul woon dara lu mu ci doon xeex wala lu mu ci doon ut wala lu mu ci doon def lu ñaaw tey kenn munu wax ni jàpp nañ ko ndax da doon wax lu ñaaw wala da doon xasaate wala da doon jël lu moomul luñ ko téye rek mooy dafa bëgg réewam bëgg a défendre réewam bëgg Sénégal baax bëgg Sénégal dem ci ay loxo yu baax mu gis fu mu yaakaar ni foofu bu fa jaaree dina sotti mu défendre cause bi donc amul dara lu mu def chaque jour damay wax ni famille ñoom dañoo am ndam parce que ëllëg Sénégal dina soppeeku kenn mënu ci dara te seen doom dinañ ko listé ci ñi nga xamee ne bi nii ñoom bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo xeex pour Sénégal soppeeku naqar bi nag chaque jour loolu lay wax ku ñu jël sa doom téye ko ci loxo yoo xam ne mënoo ko faa jëlee lépp lu la mun a wax lu dul sa doom mi ngi nii xam naa wax lay doon rek waaye du nekk li li li ñu gënal su sañoon dañuy ànd ak moom ñëw ci kër gi waaye ginnaaw mënuñu loolu te ko ko téye téye waale na sax ka nga xam ni mooy président Ousmane ko te mu taxoon muy xeex dem na sax ba bëgg ko xañ lépp li nga xam ne ay droit am la ak àqam la kon kooku xam nga ni wéetul ci xeex bu mu nekk ndax ka taxoon mu koy def ñoom ñaan ñoo fa bokk donc ñu nekk ay junniy xale ci Sénégal yoo xam ne ñu ngi dund loolu donc di leen ko masawu bu baax a baax di ko masawu ay waajuram yu góor ak yu jigéen di leen wax ni ah en tout cas daal chemin de la libération tànk yu mu yëkkati nii mooy mën a ñëw mën a masawu ah, comme ni ñu koy faral di defee xam nañ ni gars yi ñu ngi fiy jaar bés bu nekk weetu leen ci waaye ñun dagoon na waxtu wu nekk suñu mën a yëkkati suñuy tànk rek ñëw ci yéen pour wax leen Sénégal nag lii rek moo ko mën a soppi lii rek moo ko mën a soppi mooy ñu nekk benn. maanaam ñu ñuy noot wala ñu ñuy néewal doole ñu gën a am doole gën a ànd gën a foor gën a wax ni ki nga xam ni yaakaar na ni moom moo yor justice benn justice rek moo fi nekk dëgg mu justice yàlla justice yàlla nag justice yàlla la moom mooy ki nga xam ne ëllëg su dogalee dara du ci dem mais keneen ku dogal ku dul moom di ko teg ci jaay doole ak leneen ëllëg danañ la raaf nga dem doole yàlla ji des fi kon ñu ngi leen koy vraiment masawu ah di leen wax ni ah ñëw bi lii rek lañ ko mën a defee du du du ngi foofu

ñun amuñ seen fay président Ousmane Sonko de amul seen fay yàlla moom seen fay yàlla na leen yàlla fay parce que wóor na ma bu nekkoon fañ ko téye fële fi ma toog nii di wax moom moo fiy toog di wax ndax yàgg na ko def euh, ci ñu ñu gaañ comme ni ñu koy waxee ci ñu ñu génn faat wala ñoo xam ne dañ a téye tey nag sant yàlla la parce que am na ñoo xam ne tey bu ñu demoon sigil ndigaal lañ leen di wax am na ñoo xam ne bu ñu demoon dañ naan la ah nañ lay jàppalee ba nga mun a dox wala nga mun a jëf donc loolu mooy kaddu yi ci turu délégation bi daal ah ñu ngi leen sant di leen gërëm ci réception bi xam nañ nag xam nañ fi ngeen taxaw xam nañ seen ngëm yàlla ndax ñëw naa fi ñëwaat fi kon xam naa seen gëm yàlla yàlla na leen yàlla taxaw jërëjëf. mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam te di leen masawu coono ndax wax dëgg yàlla yéen itam dox ngeen naaj wu tàng te dara yëkkatiwu leen lu dul jàmm ak salaam. kon jàmm jooju ngeen di wut yal na yal ngeen ko am ñu bokk ko ñun ñëpp euh, damane waa Pastef ak FRAPP gàcce ngaalaama ñoom gàcce ngaalaama ñoom noo bokk gis-gis noo bokk bëgg-bëgg réew mi daf ma leer ne bu fekkonte ne mi ngi ci ay loxo waa frappe ak PASTEF kon ni mu demee du ni deme wax ngeen ko dugguleet ñëw ngeen fi waxtaan wax bu rafet waxtaan bu rafet suat tey encore kon dugguleet euh, te it man dama ne loolu Pastef bobu yàgg naa koo gis man parce que man dama dama yàgg observer ma ngi suivre bu bax sen action ma ngi suivre bu bax sen jëf avant li di am na nak bi mu amé da sama dom bok ci Dakar bama ma bany bañ ko téye la ngeen fa daan doxal tribunal ba ak euh, fele rebeus lepp man tegna ci sama bët gis na ko li man fa la nekkon di jabanté guddi ak beccëk li ngeen fa doon def yëpp man ma ngi ci doon tek sama bët xamna ko muy lu rafet lo xamne ken mënu len ko fay yàlla mi tax ngeen koy def nag yàlla na leen fay te jàppale leen ba li ngeen di yootu ci dëkk bi yàlla yombala leen ko man de gëm naa ne gëm naa ne Sénégal bu ngeen ko yore woon kon ba nii dina changé ba tax na man ak képp ku ànd man xamuñu caaxaan xamuñu fo euh, euh, euh, naxante xamuñu dara li nu woon bu dee moom rek moo nekk si yow ndax yàlla ñu ànd ak yow dañuy ànd ak nit ki nag ci dëgg fula ak fayda duñu caaxaan duñu naxante man ñu bari xam nañu ne man mi politique xuusuma ci lool ndax dama cee gis lu bëri loo xam ne daal ni muy doxee neexuma moo taxoon ma maandu ci waaye dama gis nag ci yéen ñii loo xam ne bariwul li ma koy gis feneen ba tax na ma nangoo réceptionner recevoir leen laaj leen waa koñ bi mosuma dugg ci politique mosuma réceptionner politicien su ma ko defee. Euh, nawloo leen ngeen doyloo leen gis seen doxaliin ak seen jëf moo tax affaire daaw bii sama doom loolu rek taxul de dama wax ci départ ne dama leen a yàgg a suivre di yéen yàgg déglu kon xam naa fi ngeen jëm ak fi ngeen bëgg a jëme réew mi ma ànd ceeg yéen nag dégg kon lii tàmbali la rek nañ ci ngoy góorlu bokk li ñu bëgg bokk li ñu bañ ba yàlla defal nu li ñu bëgg man day wax dëgg yàlla taan naa trop trop trop trop ci li ngeen def ndax mënoon na leen cee bañ a fekk ay nit ñu bari xam nañu ni mu demee diisoo naa ak ñoom wax naa ak ñoom waaye ca wax rek la ñu yem gisuma leen dégguma leen ñii nag xam nga mësuma wax ak yéen yéen a jékki-jékki rek ñëw seet si ma muy lu rafet man itam ma rafet loo ko di leen sant di leen ci sant di leen ci gërëm bu baax a baax sedd na sama xol.